الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان بقي نوغي سنت يالا سونو بروم تبارك وتعالى دي جولي تي يننتم صلى الله عليه وسلم di leen nuyu ci nuyub lislaam muy assalaam aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokk yi sunu bindub tey inchaa allahu taala mi ngi jëm ci lenn ci ay jikko yonent bi sallallahu alayhi fekkee dañuy fàttali lenn ci ay jikkoom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la muy tekki mooy gannaaw bi ñun ñépp ñu góorgóorlu ba roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca jikko yooya képp ku ci nekkoon it nga góor góorlu ca lool te xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikkoom rafetoon na lool yàgga ñaax xeet wi lool ci nuy rafetal seeni jikko xamaloon na xeet wi it ni leen man dey saa boroom tabaraka wa taala mooma yebal fi yéen ngir ma mottali si jikko yu rafet yi ci loolu nag ca la nekkoon di ko dundu ay jikkoom rafetoon lool ba borom bi tabaraka wa taala taggal ko boppam ci alquraanul karim ni ko wa innaka la ala xuluqin azim ni ko yow dey yow yaay borom jikko ju màgg ja borom jikko yu rafet ya sey jikko rafet na màgg na lool loolu borom bi tabaraka wa taala moo ko ko taggee moom sallallahu alayhi wa sallam masoon na noo laaj sunu yaay aïchata yàlla na ko yàlla gërëm ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallama lan moo nekkoon jikkoom moom yaa aïchata mu ni leen kaana xuluquhu alquran jikkoom day moom sallallahu alayhi wa sallama moo doon alqur'aan maanaam lépp loo xam ne ay jikko la alqur'aanul karim jàngale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mang ca di ko jëfee mboolem jikkoy alqur'aan yépp dafa nekkoon di ko jëfee moom sallallahu alayhi wa sallam ci ngay déggee ne alqur'aanul karim borom bi tabaraka wa taala def ko wàccee ngir ñu di ko settantal di ko jëfe it comme loolu la nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a yey ci nit ñi ñépp mu jëfe alquran joojoo ngir ñi koy roy xool ci moom di roy ci lu mel noonu ñaax na lool xeet wi ngir ñuy rafetal seeni jikko lool lool lool waxoon na ci xadiisa moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni inna xiyaarakum axaasinukum axlaaqa nee na seeni tànneef maanaam ñi gën ci yéen day mooy ña gën a rafet jikko ci yéen xadis la boo xam ne buxaari yook muslim yépp soloo na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xadis it ni wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan nee na na ngay jikko nit ñi ci jikko yu rafet lool kon moom sallallahu alayhi wa sallama ay jikkoom rafetoon na lool ba borom bi tagg ko ci alquran waaye it bàyyiwul woon aw xeetam lu dul da leen di digal saa yu nekk ngir ñuy rafetal seeni jikko ñun ñii di aw xeetam nag li nu sunu borom tabaraka wa taala digal ci loolu mooy nu roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mboolemi jikkom yépp yàlla wax ci alquran ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun li liman kaana yarju llaha wal yawma al axira wa dakara allaha kathira nee na am ngeen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama muy di seen royuwaay di royuwaay bu rafet lool ci képp koo xam ne yaakaar na borom bi tabaraka wa taala yaakaar na it dana dem yowmal qiyaam ëllëg di fàttaliku yàlla lu baree baree bari danañ lim nag bokk yi lenn ci ay jikkoom moom sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci ay jikkoom muy ku mënoon a wax dëgg la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy muy wax wala muy yéene wala lu muy jëf lépp lu muy def lu nekk rek da cay ànd ak dëggu daf ca dëggu lool loolu nag ay noonam ci boppam ñoo ko ko njëkk a seedeel lu jiitu ay saxaabaam di ko ko seedeel xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddoon na as-saadiqul amiin mooy ku mën a dëggal ka te ku wóor ka loolu yéefar yee ko ko tuddee doonte bañ nañ ko lool def ko noon lool waaye yéefari mboolem luñ daan am ci alal di ko dénkaane dañu ñëw ba ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko alal jooju ndax weroon na leen ni kii day ku dëggu la tey ku wóor la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dëggoom ak wóoram yëmalewu ko ci moom dong waaye dafa wax xeet wi yépp ni leen alaykum bi sidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa ma yazaalu rajulu yasduqu wa yataxarra sidq xatta yuktaba inda allahi siddiqa nee na yéen sama xeet wi maa ngi leen di dénk ngeen di dëggu lu ngeen di wax dëggu leen ca lu ngeen di nar dëggu leen ca lu ngeen di defit dëggu leen ca ndax kat dëgg ak dëggu day yóbbu nit ki ci mbaax te ak mbaax day wommat doomu aadama ji ba tabbal ko aljanna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni doomu aadama ji du deñ di dëggu di dëggal di dëggu di dëggal ba borom bi tabaraka wa bind ko ca ña nga xam ni ay dëggalkat lañ kon dëggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay jikkoom muy dëggu waaye doon na ci ñaaxeet wi lool lool noonu nag la tere safaanuk dëgg mooy ñàkk wax dëgg mu waxaat ni wa iyaakum wal kadib fa inna al kadiba yahdi ila al fujur wa inna al ila an wa ma yazaalu rajulu yakdibu wa yataxarra al kadib xatta yuktaba inda nee na maa ngi leen di tere yéen sama xeet ngeen di wax lu dul dëgg maa ngi leen di tere ngeen di nar maa ngi leen di tere lu dul dëgg ndax kat ñàkk wax dëgg day yóbbu doomu aadama ji ba ji ak kàccoor waaye kàccoor day wommat doomu aadama ji ba tabbal ko sawara yal na nu ci yàlla musal yonent bi alayhi salaatu ni doomu aadama ji du deñ di nar di nar di jëfandikooy nar ba sun borom tabaraka wa taala bind ko ca narkat ya yal na nu ci yàlla musal xadis la boo xam ne muslim soloo na ko ak tirmidi ak abu daawuda ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dëggoom ak bëgg xeet wi dëggu mu jël lii di nar boole ko ci jikkoy naafiq ba muy lim jikkoy naafiq ni ñett la def caa njëkk mu ni ida xadatha kadaba lu mu la wax rek wax na ay nar noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundee ci ak dundam yépp dëggu ci ay kaddoom dëggu ci ay jëfam dëggu ci ay yéeneem dëggu ci lépp lu muy sos ak lu mu bëgg gis ngeen islaam bii mu taxawal diina ji mu taxawal borom bi dénkoon ko ko ba mu agsi fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fondewu ko ci ay nar fondewu ko ci ay pexe ak i plan waaye daf ko fonde ci dëgg ak dëggu ba mu agsi fii tey ba mu agsi fii tey kon nag li war bépp jullit mooy nga roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dëgg googu bépp jullit li ko war mooy mu dëggu ci ay waxam dëggu ci ay yéeneem dëggu ci lépp lu muy engagé wu ragal yàlla ci ay kàddoom ak ci ak dundam yépp ragal lool nar loolu tax na borom bi tabaraka wa taala tagg képp ku dëggu ak kuy wax dëgg yàlla mu ni yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqin yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla ragal leen yàlla te ngeen ànd ak ña nga xam ni ay waxkati dëgg lañ ba noppi dëggu lool loolu borom bi tabaraka wa taala moo ko taggee waxkatu dëgg ya bokk yi bokk na ci ay jikkoom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu nekkoon ku baax lool mën a baale lool mën a jéggale lool jikko ju am solo ngi ni mbokk yi baale ak jéggale jikko ju am solo la mbokk yi yonent bi nag bokkoon na ci ay jikkoom lii mooy baale ak jéggale ku ko mas a tooñ dalay baal lu ko waayu mas a wax mu jéggal la daan digal xeet wi ni dee leen baale dee leen jéggale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés àndoon nag saxaaba yi ba ci biir àll ba xam naa ni sonn nañ kenn ku ci nekk wut foo dallu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem dallu ci benn suufu garab genn garab gu am ker mu dallu fa coono gi mu amoon tax mu nelaw fa ba fa nelawee benn waay du dox ba agsi ci moom du ñàkk ci ay noonam la bokk bi mu agsee daa di rocc jaaseem kooku ñëwoon ci wetu yonent bi rocc jaaseem daa di koy yee ba yonent bi yeewu mu ne ko tey jii kan moo dox sama diggante ak yow ba duma la rey kan moo mën a tere ba duma la rey yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ah xanaa yàlla xanaa yàlla xanaa yàlla bi yonent bi waxee loolu rek ki ko bëggoon a dóor jaasi ji yàlla dogal jaasi ji wadd ci ay loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jël jaasi ji moom it ni ko yow nag kan moo mën a tere ba duma la rey waa ji ne ko ah ah tey de jàpp nga ma xanaa rek nga doon ko baax rek xanaa nga baal ma rek ci sag mbaax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ndax yow mii ku gëm yàlla nga ndax dangay ngay ni amul benn buur bu nu war a jaamu ku dul yàlla te man mii maay muhammad rasulullah waa ji ne ko déedéet gëw ma loolu de waaye nag baal ma rek dootuma xeexate ak yow mukk dootuma ànd ak sax kuy xeex ak yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko baal naa la aca demal baal naa la aca demal bi mu dellu see da ko nettali ay saxaabaam ngir ñaax leen ci ñuy baale ci situation yu mel nii kon nga xam ni baal doomu aadama ji ci situation bi nga manee fayu bokk na ci yiw yi gën a rëy bokki jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wa fii wane na fi ak njàmbaar lool wane na fi le vrai dirigeant njiit noonu lay mel njàmbarte gi lool mooy bi ko waa ji waxee loolu amul benn raf amul benn tiit daf ne ko suñ borom dongo tax ba moo mën a tax ba dooma rey waaye bi mu jëlee jaasi ji it gaawantuwul rey ko xam na ne waa ji bëggoon na ko rey mais dafa waxtaan ak moom ci dal ne ko ndax gëm nga yàlla ndax gëm nga ni maay Muhammad waa ji ne ko déedéet bu neexoon rey ko mu ne ko baal naa la demal baal naa la demal yonent bi wane na fa kattan ak jàmbaar wane mechage bi nga xam ne borom bekk ko wax mu jàllale ko waar na ko ci diggante bi nee na ko ndax gëm nga yàlla ndax gëm nga ne amut benn buur bu nu war a jaamu ku dul yàlla ndax gëm nga ne may Muhammad kon waar na ko ba noppi bi waa ji lànkee mu doo ko baal loolu na ci ñëpp bàyyi xel bokki jullit te xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku mënoon a jéggale la ku mënoon a baale la beneen histoire boo xam ne Anas moo koy nettali nee benn bés yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa soloon yére boo xam ni kol bi maanaam baatu mbub mi dafa tal lool bi ñuy dox di dem rekk benn waay daw ñëw rek ba jege yonent bi daal di koy poñe nim ko poñe metti na lool ba anas nee na maa ngi gis kolu mbub mi maanaam kolu mbub mi mu ngi mark ci doq yonent bi ndax poñe bu metti nee na waa ji ko poñe daal di koy gësëm gësëm gësëm yëngal ko ni ko sa alal ju bari ji nga yor ak sa nay bi nga nay dama bëgg nga may ma ci alal ji nga yor nay nga lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool waa ji daal di reetaan daal di wax saxaaba yi ni leen lu ngeen ko mën a may xoolal ma jiit gii dal ak gii mbaax ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp ku ko roy doo ko rëccu mukk mbokk yi am na benn nettali boo xam ni euh, ñu ngi ko jëlee ci yenn xissa yi muy lu mat a bàyyi xel lool xekk ma rëy mi ngi ci dafa am ay ndongo yu nekkoon ci daara ji doon jàng bi nuy jàng ba mujj yàgg benn ndongo ci ndongo yi feebar tëdd feebar feebar bi nag yàgg na lool metti lool ci moom mu dem ba amatul yaakaar ci feebar bi mu woo benn xaritam ci taalibe yi ni ko ah sama xarit man de sama feebar bi tiit naa ci lool yaakaaruma ni danaa ci jóg waaye nag dama bëgg bés bu ma faatoo bu ma sëriñ bi jiite mukk ci sama julli buñ may jullee bu ma sëriñ bi jiite mukk taalibe booba ni ko ah sëñ bi ni mu baree xam-xam ni mu baaxee ni mu mel yow nga ni bu la jiite lool de yéeme na sëñ bi baax na de am na xam-xam lool ki tëdd feebar ni ko waaw sëñ bi am na xam-xam lool waaye nag li ma nekk ci daara ji yépp mësumaa gis ku ko tooñ mu baal ko mësumaa gis sëriñ bi baal kenn ku ko tooñ dana fayu lu ko waaye def mu fayu ba kenn ñemewu ko mësta baale mësta may kenn njekk ku ko ñaan njëkk mu lànk te damay ragal nag ma faatu mu di ma jullee di ñaan yàlla mu jéggal ma yàlla bañ koo may njekk ndax ku dul may njekk yàlla du la may njekk ku dul baale yàlla du ko baal looloo tax bu ma sëñ bi jiite mukk ñaari fan taalibe ba génn àdduna beneen taalibe ba ñëw ni ko sëñ bi kii day lu jiitu muy faatu nee na woon bu ko jiite mu ne ko alu tax mu ne ko nee na lim nekk ci daara ji yépp mësta gis nga baal kenn mësta gis kenn ñaan la njëkk nga may ko day ragal nag boo ko jiitee boo ñaanee yàlla njekk yàlla bañ mësoo baal kenn day ragal ni soo jéggaloo yàlla du la jéggal sëñ ba daal di arrière keneen ñëw jiite ko bi nu noppee ci la sëñ ba déggee li ko ndongali wax ca la tàmbali di baal képp ko ko tooñ loolu liñ ci mën a jàng mbokk yi mooy nit ki da ngay baale suñ la ñaanee njëkk ngay maye ndax kenn ku ci nekk day tooñ borom bi tabaraka wa taala te bëgg na yàlla baal ko kenn ku ci nekk day ñaan borom bi mu woyefalal ko mu baal ko mu jéggal ko kon kenn ku ci nekk dafa war di baale di jéggale royee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegoo rek nga dégg ku ni la man du tooñ kenn waaye ku ma tooñ ma fayu loolu du waxu du waxu nit ku baax nit ki bul tooñ kenn dëgg la waaye ku la tooñ baal ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni woon del jokk ki la dul jokk yow ku la bañ bëgg ko ku la tooñ baal ko ku la dul may dee ko may loolu la yonent bi jàngale yàlla borom bi tabaraka wa taala jàngale waat ci alquran ni wa an taafuwa xayrun lakum ngeen di baale day moo gën ci yéen yàlla waxaat ci alquran ni fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah képp ku baale jéggale baaxal rafetal nee na kooku ak payam mi ngi ci sun borom tabaraka wa taala kon nañu ko bàyyi xel bokk yi nañ ko royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko ko royee bokk yi bokk na ci ay jikko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon na ku baax ku tabe lool ku mënoon a maye anas mi nga xam ni moo nekkoon kër yonent bi daan ko liggéeyal wax na benn bés mu ni mësuta fekk benn yoon fu nu ñaane yonent bi sallallahu alayhi wa mu gàntu nee na lu ñu mës a ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallama may na ko nee na su daan joxe day joxe ba mel ne kii ragalut ñàkk benn bis xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nekkoon na ci ak xiif gu metti lool mu génn bi mu génnee mu dajeek Abu Bakrin Siddiq mu ne ko Abu Bakar looy génn heure bi Abu Bakar ne ko man de damaa xiif moo tax may génn heure bi nuy dox di dem dajeek Omar ibn al ñu ne ko ah Omar looy dox Omar ni leen damaa xiif ñu ni ko ah kon nañ ànd dem ci kër Abu Ayyub benn saxaaba la ba xam ban àndee dem ca Abu Ayyub ni leen lu xew ñu ni ko dañoo xiif de moo tax ñuy dox nii Abu Ayyub a génnee aw bay rayal leen ko ñu lekk ca ba regg daa di sant yàlla ñaanal ko ku ne dem ba ñu àggee ca kër ga yonent bi sallallahu alayhi wa dafa jël ab jaamam may ko abu ayuba te jaam nekkoon lu cher ci ñoom nekkoon lu rëy ci ñoom waaye mu yëkkati ab jaamam may ko abu ayuba loolu ci xeetu tabe ci la bokk ci xeetu képp ku defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam teraanga mu delloowaat la teraanga gu ko gën a bari kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la mel benn bis rey na gàtt ci këram daa di woo yaay Aïcha ni ko gàtt bi jël ko nga séddale ko way ñàkk yi yaa Aïcha jël yàpp wa di séddale di séddale di séddale ba mu des benn benn cuisse maanaam pooj ba rek moo des bi mu ñëwee ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam yenent bi ne ko ah ana ndawal ga yaa Aïcha ne ko ndawal ga de lépp jeex na takk ba mu des cuisse bi dong ba mu des pooj bi rek yonent bi ne ko déet neel lépp des na ba mu des kiwis bi kiwis bi moo jeex yaa Aïcha ni ko lu tax mu ne ko kiwis bi ñuy lekk dañu koy lekk mu rees yu daal di koy dem àll ba léegi waaye lañuy joxe nag day des ba yowmal qiyaam suñ borom fay ñu ko kon yonent bi noonu la doon joxe moom day joxe rek parce que gëm na ni su joxe borom bi tabaaraka wa da ko koy denceel ba yowmal qiyaam mu dellowaat ko ko ku tabe la woon mbokk yi loolu it nan ci roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci di mën a joxe ci di ci di mën a maye ci li nu yàlla wërsëgal bokkoon na ci ay jikko moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku mënoon a toroxlu la ku wàccee woon boppam la ci kanamu jullit ñi ñëpp loolu nag mi ngi ko jëlee ci borom bi tabaraka wa taala ndax xam ngeen ni jikkoom moo doon alquranul karim te yàlla borom bi moo ko digal muy toroxlu di wàccee boppam ci kanamu jullit ñi yàlla moo ko wax ci alquran ni ko wax fid janaahaka li man ittabaaka min almuminin nee na ko wàcceel sa bopp lool ci ñi nga xam ne ñoo la topp muy ay ñuy ay jullit yonent bi alayhi salaatu wasalaam mësta ñëw ci sahaaba yi mukk di wane boppam ni maa fi mag maa fi gën maa fi gën a nangam sangam déedéet foo ko fekk mook saxaaba yi ñooy yem ñooy àndandoo di dem ak dikk moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na fekke rob yi daan na yéeg mbaam yonent bi alayhi salaam wasalaam daan na jël dàllam daan na ci dox ba mu dagg mu jël dabb daaxe ko ba mu man cee dox mu dox ci dem yéreem daan na xotteeku mu daax ko ba nga xam ni des na ko mën a sol mu sol ko dem mësuta wane benn rëy rëylu ba moom ci boppam daan na wax ni kat képp ku toroxlu wàcce boppam borom bi tabaraka wa taala yëkkati ko ba mu kawe lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam it daan na wax ni képp koo xam ne sab xol rëy rëy mi ngi ci nee na kooku du tabbi aljanna looloo taxoon nag mu wàcce woon boppam lool ci lépp benn bis ànd nag ay saxaaba ci àll ba nu yoroon fa benn gàtt biñ demee ba xiif dab leen ci àll bi ñu ne ah xiif nañ dey kon nañu rey gàtt wi am ku ni man de maa koy rendi am ku ni man maa koy fees am ku ni man maa koy togg booba li ci saxaaba yi jublu rek mooy bëgg lëggéeyal nit ñi ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki gën ci nit ñi mooy ki leen di lëggéeyal ñuy jëfandiku ki leen di toggal warga ñuy jëfandiku ki leen di toggal kafe ñuy jëfandiku ki leen di toggal ceeb ñuy jëfandiku kooko ci gën a baax looloo tax ñuy njëkkante ngir defar bay wi ngir defar gàtt wi am ku ni maa koy rendi am ku ni maa koy fees am ku ni maa àppoo togg gi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni maa àppoo wuti mat saxaaba yi ni ko déet yow koy toogal rek nu defaral la ba mu normal nga lekk ba regg mu ñu leen mukk man ak yéen yépp benn lañ bàyyi leen ma wuti matt ñu togg loolu moo nekkoon jikkoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama loolu war a nekk ci royuwaay ci képp koo xam ne dangaa nekk ci sa biir yi ndongo moo xam ngay ab sëriñ moo xam ngay ab ustaaz moo xam ngay borom kër gi moo xam ngay koo mën a doon te dib jullit war nga wàcce sa bopp lool ci kanam ñu nga xam ni noo nekk ak yow ñoo ànd ak yow ndax loolu moo nekkoon jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te ay jikkoom borom bi tabaraka wa taala moonu digal ñu di ko roy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi alayhi salaatu bokkoon na ci ay jikkoom mooy daawul wax lu ñaaw mukk daawul xas kenn daawul saaga kenn euh, loolu it mi ngi ko royee ci borom bi tabaraka wa taala ndax yàlla wax ci alquran ni maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nee na amut lenn lu waaye di wax lu dul ñaari malaaka danañ ko bind indi ko yowmal qiyaam looloo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mësta wax lu ñaaw jëme ko ci nit mësta xas kenn mësta saaga kenn benn bés moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam toogoon na ak saxaaba yi am benn yéefar bu leen romb ni leen assalaamu aleykum maanaam yàlla na ngeen dee yéefar bi ni leen yàlla na ngeen dee yaa Aïcha fa mag fa toogoon yaa Aïcha tontu ko ni ko wa alaykum saamu wa laana yow it yal na nga dee yal na la yàlla rëbb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa Aïcha inna allaha laa yuhibbu alfahsha wala altafahush walakin quuli wa alaykum mu ni ko yaa Aïcha yàlla bëggul wax lu ñaaw bëggul jëf ju ñaaw bëggul kuy ñaawal mukk bu ko wax loolu ne ko rek ak yow ku la xas bu ko wax lam la ku la saaga bu ko saagawaat loolu ku la ñaanal dee bu ko ñaanal dee lu la waaye wax daal nee ko ak yow yamal ci loolu yow bul tudd lu ñaaw li mukk kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la nekkee woon ku baax doon ko jàngal xeet wi yàlla yit ni leen na ngeen ko royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen ko royee bi alayhi salaatu wasalaam bokk yi ay jikkoom moom yonent bi bari na lool lii ma ci wax lu néew a néew a néew a néew a la mbokki jullit yi kon dañu yem foofu ngir bañ rekk vocal bi gudd donte gudd na sax ba noppi waaye nu yem foofu mbokki jullit yi nu bàyyi xel ni borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana man kaana yarju llaha wal yawma al axir yàlla nee na da ngeen roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndax day doy na leen sëkk ngeen def ko royu waaye bu rafet lool ci képp koo xam ne yaakaar na alaaxira yaakaar ni a dajeek borom bi tabaraka wa taala kon lii ma doon lim lépp ginnaaw bi mu nekkee jikkoy rasulullah tañ di ay jullit nañ ko ko royee moom yonent ba alayhi salaatu wassalaam mbokk yi maa ngi ñaan borom bi tabaraka wa mu baaxal ñu rafetal suñuy jikko lool bépp ñaawteef bu nekk ci ñun yal nañu ko yalla dindil ba mu jóg ci ñun ba set wecci yal na borom bi tabaraka wa taala rafetal suñuy jikko rafetal suñuy jëf yal na nu yàlla yaral boppam comme na mu yare woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallama yal na nu ci borom bi tabaraka wa taala dimbali dimbali ci mboolem jullit wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu